très chers amis auditeurs, par la grâce de Dieu subhanahu wa ta'ala, nous sommes ensemble en ce jour béni, en compagnie de notre sœur Sokhna Salimata Diop, pour poursuivre notre réflexion sur les les avantages que nous présente le Ramadan les avantages que nous présente la vie ak côté de nos deux parents mbokk yi ñu dellu sant yàlla subhaanahu wa taala mi nu wërsëgal nu daje ci bis bu tedd bi àndandoo ak sunu mbokk soxna Salimata Diop fas yéene wéy di càmbar di càmbar ci li nga xam ni moom lanu mën a jural ci xéewal dundandoo ak sunu ñaari way jur tey le messager de Dieu la meilleure des créatures monta les marches du minbar un jour et dit Amin trois fois quand on lui demanda il répondit Jibril est venu me dire oh Muhammad paix et salut sur lui Celui qui passe le ramadan sans que ses fautes ne soient pardonnées et qui entre en enfer, que Dieu l'éloigne, dit Amin. Et j'ai dit Amin. Celui qui vit en même temps que ses deux parents ou l'un d'eux sans se comporter affectueusement avec eux et qui meurt dans cet état et entre en enfer, que Dieu l'éloigne, dit Amin, et je dis Amin. mbokk yi yonentu bi alayhi salaam dafay yéeg escalier minbar bi rek wax ñetti yoon amiin ba mu wàccee gaa yi laaj ka lu tax nga wax lii mu ni ataani jibril jibril moo ñëw bi mu ñëwee ni ma muhammad man adraka ramadaana fa lam yuxfar lahu fa daxala naar fa abadahu llah qul amiin fa qultu amiin mu ni ma yow mi yàlla yónni képp koo xam ni kii dund na fekke weeru koor te kenn jéggalu ko ay bakkaaram kooku tàbbi na safara kooku yal na ko yàlla dàq yërmandem waxal amin mu ni ma ne amin wa man adraka abawayhi aw ahadahuma falam yabarrahuma fa maata fa daxala naar fa abadahu mu ni ma képp ku dundandoo ak sa ñaari wayjur wala kenn ci ñoom ñaar nga sàggan ba doxaloo njëkk sa digganteeg ñoom ba nga dee tabbi safara kooku yal na ko yàlla dàq yërmandem waxal amin fa qultu amin ma ni amin ainsi amis auditeurs après avoir parlé des avantages du ramadan Si bien que nous tous, nous savons maintenant ce qui nous reste à faire en ce mois béni pour pouvoir sortir de ce mois avec tous nos péchés pardonnés. Nous abordons aujourd'hui la question de l'amour filial, birrul walidain, qui est une disposition naturelle avant d'être une obligation divine comme l'indique le verset 23 de la sourate Isra qui Ton Seigneur décrète de n'adorer que lui et de se conduire de la meilleure façon avec vos deux parents biologiques mbokk yi birrul walidayn gannaaw xam nañu li ñu war a taxawee ci koor pour mucc jekkal sa digganteeg sa ñaari way jur mi di sunu tomb tey dama lay wax ni kooku lu yàlla mooñaale ci nit la li muy tekki mooy bu ko santul woon sax nit da koy def rawatina nag borom bi subhaanahu wa taala def ko farata ci kaw doomu aadama yi ba muy wax mu ne wa qada rabbuka allaa taabudu illaa iya sa borom dogal na faratal na ni kenn du jaamu kudul moom wa bil walidayni ihsaanan faratal na ngeen doxal njekk seen diggante ak seen ñaari wayjur suratul isra manifester du respect et de l'affection envers ses parents est une disposition naturelle pour tout fils et toute fille qui d'ailleurs ne peut éprouver que de la gratitude et de la reconnaissance pour ceux-là qui t'ont donné naissance, pour celui qui t'a porté dans son guénon, pour celle qui t'a porté dans son ventre, qui t'a nourri de son sang et de son lait. On ne peut éprouver que de la gratitude, de la reconnaissance pour celui qui s'est chargé de te nourrir, de te soigner, de subvenir à tous tes besoins matériels, moraux, spirituels, dans les étapes les plus critiques de ta vie. Manifester à cela de l'amour est donc un devoir naturel que Dieu subhanahu wa taala a simplement élevé au rang de devoir religieux mbokk feeñal cofeel sa diggante ak euh, sa ñaari wayjur loola yëg-yëg la boo xam ni bu bu bu nit di dundaale bu ñu mooñ ci doomu aadama la ana kan moo dul yëg sa wareef sa diggante ak ñi nga xam ni ñoo la jur kan moo mënula fonk di wekk di delloo njukkal ki nga xam ni ci geñoom nga jaar ba ñëw ci àdduna bi ana kan moo dul wekk ki nga xam ni ci biiram nga jaar ci suuxam lañu mooñe sa suuxu yaram wi deratam ci la la dundal ci weenam ci la la nàmpal njëkk ak teraanga rekk moo mën a dox diggante doomu aadama ak ki nga xam ni kii moo taxaw saa su nekk di la dundal bi nga mënul dundal sa bopp di la faj bi nga mënalul sa bopp dara di taxaw ci lépp loo soxloo moo xam ci wàllu àdduna la jëm moo xam ci sa defar say jikko moo xam defar sa ruux tàggat ko ci jamono bi nga xam ni mënaloo sa bopp dara ñooña nga feeñal sa cofeel sa diggante ak ñoom kenn du xaar ku la ko sant lu nit di yëg la waaye yàlla subhaanahu wa taala ànd ak loolu lépp mu daal di koy def farata def ko wareef comme ni julli ak woor ak wéetal sa borom nekkee wareef ami auditeur ce devoir naturel ce devoir de reconnaissance et de gratitude envers nos deux parents nu est rappelé dans les versets que je vais vous rappeler Le premier, c'est le verset 24 de la sourate Le voyage nocturne qui dit Déploie avec tendresse, avec affection, ton aile d'humilité pour tes deux parents et dis Seigneur, sois miséricordieux avec mes deux parents, comme ils ont été miséricordieux avec toi quand ils m'élevaient tout petit. mbokk yi wareef nga xam wareef la bu nit di judduwaale di dikkaale ci àdduna bi delloo njukkal googu nga xam ni doomu aadama ji war na digganteem ak ñaari waajuram yàlla dañul di ko fàttali bokk na ci laay yii ma lay waaj a wax li ci njëkk ma ngi suratul isra borom bi ni wax fit lahuma janaha dhull min mu ne na nga lal sa laafu torox tànge toraxlul sa digganteeg sa ñaari wayjur ngir yërmande gi ngay am sa digg ak ñoom wa qul te dil ñaan ñeel sa ñaari wayjur nga ne rabbirhamhuma kama rabbayani saghira yow sama borom defalal sama ñaari wayjur yërmande may leen sa cofeel ni nga xamee ni noonu la ma yërëme woon sopp ma bi ñu may yar fekk booba ab tuut tànk la laaye ñaar fukk ak le deuxième verset c'est le verset 14 dans la sourate Luqman qui dit nous avons recommandé à l'homme la bonté envers son père et sa mère sa mère l'a porté supportant les douleurs du début de la grossesse les douleurs de la grossesse avancée affrontant et surmontant difficulté après difficulté jusqu'à son sevrage deux ans après sa naissance. Sois donc reconnaissant envers moi, Dieu, ainsi qu'envers tes deux parents. De toute façon, c'est vers moi que vous retournerez. mbokk yi ñaareelu laaye bi mooy ca suratu Luqmaan borom bi dénk na njëkk doomu aadama ji jëflante ka ak ñaari way juram mu mel ni dañu ne lu tax mu ne xamalatu ummuhu wahnan ala wahn sa yaay ëmb na la di jàll di di jànkonteeg ay coono ci kaw coono mu nga ca jafte mu nga ca biir ba diis mu nga ca mënatul dox wa fisaaluhu fi amayn noona lay sonne ba ba mu lay feral gannaaw mu nàmpal la ñaari at anishkur li bon nga la waaye doomu aadama ji sant ma man mi la bind jaarale la fii wali walidayka te nga sant nag te gërëm sa ñaari waajur ilayya al masir te nga xam ne ci man lañu lay delloo si suratu luqman laaye fukk ak ñeent enfin amis auditeurs Le verset 15 de la sourate Aqaf rappelle la mobilisation des parents face aux souffrances de la grossesse, de l'accouchement, leur détermination à te faire vivre et qui t'a permis de passer la période critique de la mortalité infantile. de ta naissance à ton sevrage. Le verset dit, nous avons recommandé à l'homme la bonté envers son père et sa mère. Sa mère l'a porté avec peine et l'a mise au monde dans les douleurs terribles de l'accouchement. Trente mois durant, elle endura les contraintes de la grossesse, puis de l'allaitement jusqu'au sevrage mbokk mi ñetteelu laaye bi dinu fàttali sunu wareef digganteeg sunu way jur ma nga ca suratul ahqaaf laaye fukk ak juróom ni la wa wassayna al insaana bi walidayhi ixsaanan man yàlla sant naa nit mu jëflante jëflante bu gën rafet ak ñaari way juram mu mel ni dañu ne que lu tax mu ne xamalatu ummuhu kurhan yaayam ëmb na ko ci coono wa wadaathu kurhan mu imbi ko ci coono wa xamluhu wa fisaaluhu thalaasuna shahran coono yi ëmb ak nàmpa lépp fanweeri weer la suratul ahkaaf laaye fukk ak juróom mbokk yi nu ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu warsugal nu bokk ci ñiy taxawe seen wareef seen digganteek seeni ñaari way jur boole ñu ci way dégg yi mën a topp loola yomb na borom bi yal na ko defal anta fi al-akwaan mustafa ar-rahmaan ji'ta bil-qur'aan haadiyan lillah ya rasuulallah nous avons tous remarqué que certains esprits malades qui conçoivent les relations entre l'homme et la femme dans une optique d'opposition et de lutte permanente parlent de l'importance et de l'intérêt que Dieu subhanahu wa ta'ala accordait à la mère au détriment du père. Cela simplement parce que le Coran insiste particulièrement sur le rôle de la mère. Mais l'ignorance aurait toujours intérêt à se taire mbokk yi seetlu nañu ni nit ñi nga xam ni ñu ngi gis diggante góor ak jigéen comme xeex bu war a am jaamarloo ci seen diggante bi ñu gisee alquran tudd lu ëpp taxawaayu ndey tuddul taxawaayu baay ñu daldi ni a bonkat yàlla subhaanahu wa jigéen la teg ci kaw góor ka jigéen la gën a jox gëdd waaye nga ni ñàkk xam la mu waral bare na nous avons certes vu le Coran mettre en relief le rôle de la mère Dans la plupart des passages du genre, j'ai recommandé à l'individu la bonté envers son père et sa mère. De même, quand un homme est venu poser au messager de Dieu, à la meilleure des créatures, au prophète Muhammad, paix et salut sur lui, la question est dit, qui a plus droit à mon bon compagnonnage Il lui répondit ta mère. L'homme dit, après c'est qui? Il dit, après c'est ta mère. Après demanda l'homme, c'est qui? Après c'est ta mère. Après c'est qui? Et le messager dit, après c'est ton père. mbokk yi ñun ñëpp gis nañu alquran ni mu taxawee ci fesal taxawaayu ndey ci laay yi yëpp di wax wasaynal insaana bi waalidayhi ixsaanan sant naa nit mu rafetal digganteem ak ñaari wayjur li mu cay teg toujours mooy ndey ji def na nàngam noona it eh, abu hurayrata nettali na waaja ñëwoon ci yonant bi alayhi salaam ni ko man axaqu bi xusni saxaabati kan moo gën a yey ci ma rafetal sama digganteeg moom ci àndandoo yi qaala ummuka mu ne ko sa ndey mu ne ko summa man bu bu sama yaay jàllee kan moo ci topp mu nekk ko summa ummuk mu ko bu sama yaay jàllee kan moo ci topp mu ne summa ummuk ba ñeenteel yoon bi mu nekk ko summa man kan moo ci topp mu ne ko summa abuka gannaaw loola sa baay moo ci topp amis auditeurs le but de cette insistance sur le rôle de la femme n'est pas de minimiser le rôle et le statut du Père. Les actions du Père sont évidentes, visibles et appréciées par tous. Même l'enfant, quand il commence à prendre conscience, il constate que c'est son père qui se charge de régler tous les besoins de la famille, ses besoins de même que ceux de sa mère. mbokk yi bu yàlla subhaanahu wa taxawee ci lii taxaw bu yàgg du jéema a néewal taxawaayu baay jéem a yëkkati ci kawam taxawaayu ndey déedéet li am mooy baay li muy jëf lu fees la ñëpp di ko gis ñëpp itam lu gën a bare di ko naw xale bi sax bu ko commencé ràññee li muy jëkk ràññee mooy man kat dama seetlu ni sama papa mooy def lépp lu ñu soxla lu nekk moo xam sama yaay moo xam man ah ñun ñëpp ci moom la ñu jëm moom moo koy faj c'est lui qui nous donne à manger c'est lui qui a fourni le toit c'est lui qui a fourni les équipements c'est lui qui donne à l'enfant tout ce dont il a besoin et même l'enfant c'est à lui qu'il di père Je veux que tu me donnes la lune que je vois là-bas. Quand un avion passe, c'est à son père qu'il demande de lui donner l'avion qui est là dans le ciel, et non à sa mère, car lui-même, quand il s'adresse souvent à sa mère pour ses besoins, cette dernière lui dit, attends que ton père revienne. De ce point de vue, tout le monde sait ce que fait le père. Ok. jëfam ñëpp xam nañu moo gàddu dépense yi mooy joxe lekk moo war a dëkkal moom lu xale bi soxla moom ci boppam dafa gis ni moom moo ko koy fajal ba xale bi ci boppam sax bu soxloo dara day jëbal direct ci papaam yu gën a jafe bu séenee weer wi dafa du wax yaay jox ma weer wala papa lay wax jox ma weer wi avion romb walla mbir romb mu ni pàppal lële laa bëgg lu tax ndax lu gën a bare bu waxee yaayam ni que yaay bëgg naa nangam yaay ji dafa naan que xiinamaa yaati abuka xaaral ba sa papa ñëw bu ñëwee rek mu dal di nuy fajal sa soxla bi ainsi amis auditeurs le rôle du père est connu visible et nul n'a besoin de s'y attarder encore davantage. Dès lors, Dieu subhanahu ta'ala veut attirer notre attention sur le rôle incommensurable de la mère, mais un rôle souvent ignoré. Il veut insister sur les efforts fournis par la mère, sur les privations qu'elle s'est imposées. Et souvent, ces efforts et ces privations se passe à un moment où l'enfant ne pouvait les connaître ni en prendre conscience. Car en ce moment, l'enfant était dans le ventre de sa mère, et durant la période où il ne reconnaît ni ne connaît rien, durant son allaitement, la mère est toujours présente, luttant, fournissant des efforts immenses. bàyyi li muy jëf euh, nëbbuwul fees na ñëpp xam nañu ko soxlawul ñu ci toppaat di wax ak waxaat moo tax yàlla subhaanahu wa taala wëlbatiku ci ki nga xam ni jëfam dafa nëbbu léeg-léeg sax dañ yaakaar ni deful dara te fekk yaay ja def na lu mu mën ci kàttanam yaay ja xañ na boppam lu bare ngir njaboot gi mën a dem waaye góor góorgóorlu boobu ak jàmbaar googu jigéen ji di def lu gën a bare xale bi mënu ko yëg ndax ma ngi koy def booba xale bi mu ngi ci biiram mënu ko yëg mu ngi koy def booba xale bi liir la mu ngi nekk parental di nàmp mënu ko yëg waaw bu booba laaj na ñu fàttali ka pour mu xam ni nangam ak nangam jaar na fi démb ak bërki démb on peut ami auditeur dire que sans la mère l'enfant n'aurait pas vécu il aurait seulement suffi que la mère refuse de manger ou de boire de façon hygiénique il aurait suffi qu'elle adopte un comportement dangereux qu'elle refuse de prendre soin de sa personne il aurait suffi qu'elle refuse de t'allaiter il aurait suffi qu'elle refuse de s'occuper de toi de ton hygiène environnementale corporelle physique surtout lorsque tu as fait tes besoins naturels il aurait simplement suffi qu'elle te haïsse quand tu étais dans, dans son ventre ou bien à ta naissance pour que ta survie devienne hypothéquée mbokk bi mën nañu wax ni su woon ak ndey ji te loolu la alquran di fàttali dund doom dana jafe mu doon lekk lu bon rekk walla muy naan yu bon loola day jeexital ci doom ji mënoon na rekk di def mbir yoo xam ni yii yépp bu ci duggee rekk danga naan ëpp li mën na gaañ doom ji ci biiram du jël benn matukaay du moytu dara mënoon na bañ la nàmpal bi nga juddoo bu fekkonte ni toppatoowu la di la sang di la fomp boo demee gannaaw kër mu defar la ba nga jekk ah bu boobaa dund dana jafe waa léegi nag bu fekkoon ndey ji ba nga nekkee ci biiram rek bañ na la bañ bañ li na ci biiram est-ce que loolu dana dund du dund bu juddoo mu xool ko bëtug cibeel bëtug mbañeel bu boobaa nga ni dund xale bu mel noona dana doy waar comme ni nu ko gisee ci li nu wër amis auditeurs c'est donc simplement pour que nous ne perdions pas de vue ces sacrifices ces sacrifices et ces efforts cachés dont aucun enfant n'a été témoin et peut-être même n'en a conscience que Dieu subhanahu wa ta'ala son messager, la meilleure des créatures, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, insiste sur le rôle de la mère. C'est comme s'il disait, n'oublie jamais ce que ta mère a fait pour toi. Même si tu n'étais pas présent, moi Dieu, je témoigne qu'elle l'a fait et ton entourage témoigne qu'elle a agi. pour que tu vives mbokk mi ngir nu bañ a fàtte yi nga xam ni moom la ndey taxawee lépp li mu xañ boppam njàmbaar ji mu wane yépp fekk xale bi mënu ko woon a yëg waaye yàlla moom yëg na ko yonentaam yëkk sallallahu alayhi wa ali moo tax ñu taxaw ci ni la bu ko fàttee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 المقصود أنت يا محمود Ceci dit, ces précisions faites, la gratitude et la bonté filiale sont une recommandation permanente envers les fils. Cette obligation divine disons plutôt cette disposition naturelle innée, s'impose encore davantage quand les parents sont avancés en âge, quand ils vieillissent mbokk yi bu fekkee lii leer na da ngay wax ni birrul walidayn te mooy def njëkk sa digganteeg sa ñaari wayjur dénkaane la boo xam ni bu yàlla mas a dénkaane yonent bu fi mas a jaar euh, dénkaane boobu nga ni bon melokaanu nit boobu yàlla mooñ ci nit dafay gën a ci feddaliku boo xamee ni way jur yi dem nañu ba di jëm mag di màgget car amis auditeurs quand nos parents sont quand ils sont encore aptes à affronter la vie, nous les enfants, nous n'osons pas manifester notre mépris envers eux, encore moins les minimiser ou leur crier dessus. Au contraire, loin de là, très souvent dans cette situation, nous cherchons à nous rapprocher de nos parents, nous faisons tout pour leur satisfaction et souvent simplement pour profité de leurs bien et de leur richesse mbokk yi yéen ñu tedd ñu ànd ak nun ci bis bu tedd bi da ngay wax ni mage moo ëppati solo ndax bu way jur yi nekkee ci seen digg doole yore seen kàttan mën a fajal seen bopp seeni mbir benn doom ñemewul jóg di leen ñàkke teggin benn doom ñemewul jóg di doxaleek ñoom noo xam ne nii yaa ngi feeñal sa xeebeel ci ñoom wala même nga jóg di leen gëdd li ñu gis kay mooy bu ñu tolloo foofa njaboot gépp dañuy góorgóorlu ku ci nekk yaa ngiy jéem wut lu neex sa wayjur lu gën a bare ci loolu sax mooy pour mën a rek jot ci li mu yor muy faj sa aajo et dans les rares où un enfant se révolte contre ses parents, encore actif, fort et capable de se prendre en charge, l'enfant n'ose pas extérioriser son mépris ou humilier ses parents publiquement, de peur de se faire punir d'une manière ou d'une autre mbokk yi léeg nga gis xale boo xam ne bii day fetteerlu feeñal ak noonoo digganteem ak waajuram fekk waajur bi sax mu ngi am kàttan am doole waaye du ñeme feeñal lu bare bare ci li mu ëmb ci biir xolam loola ngir xam na ni bu ko defee wayjur wekk man fuuf dana ko duma ci nii wala ca nale duma ko ci zaahir wala mu duma ko ci baatin mais ami auditeur Il n'en est pas de même quand les parents deviennent vieux. Dans ce cas, les choses peuvent changer. Quand la faiblesse, l'incapacité et l'indigence les atteint, les relations peuvent changer. Quand ils perdent leur statut de donateur pour devenir des demandeurs, quand ils passent de statut de chargé de famille qui résolvait les problème des enfants au statut de charge pour leurs enfants qui règlent maintenant leurs problèmes mbokk mbir yi mën nay nay soppeeku boo xamee ni way jur yi dem nañu ba mage boo xamee ni seen kàttan néew na seen man-man nekkatu fa li ñu bëgg mënaluñu ko seen bopp bu boobaa lu bare mën na soppeeku mbir yi ci jëflante ak wayjur yi mën na soppeeku boo xamee ni bi ñoom démb ñoo doon joxe tey dañu taxaw di laaj mbir yi mën nay soppeeku boo xamee ni bii jóge nañu ci ku yoroon kër gi di doxal nekk léegi koo xam ni kii sa njaboot ñoo la yor

l'omniscient le tout puissant mbokk yi soppeeku dund àdduna wëlbatikoom jóge ci lii jëm ca lale yàlla subhaanahu wa wax nanu ko mu nekk ñetti étape rek kàttan wala nga di néew doole kàttan gu tuut topp ci néew doole topp ci génn àdduna moom lay wax suratu ruum mu ne allahu lazi xalaqakum min daafin yàlla moo leen bind bind leen ngeen njaal bennoo néew doole summa jaala min baadi daafin quwatan gannaaw néew doole googu mu jox leen kàttan kàttan googu boo ko nattee fukki at la fukki at ak juróom ñaar fukki at ci sa dund summa jaala min baadi quwatin daafan wa shayba gannaaw kàttan googu mu delloo si néew doole lompañ bijjaaw màggat ba xubidaas mu ni yaxluqu maa yasha yàlla mooy bind nit di ko jaarale ci naka soob wa huwa al moom mooy ki xam moom mooy borom kàttan gu matali gi suratu Room laaye juróom fukk ak ñeent nu ñaan yàlla subhaanahu wa mu wërsëgal nu nu bokk ci way dégg yi mën a topp loola yomb na borom bi yàlla na nu ko defal زارك التسليم من يد التعظيم Pour les raisons que je viens de vous évoquer, Dieu subhanahu wa ta'ala insiste pour que le comportement des enfants soit un comportement honorable lorsque leurs parents deviennent vieux affaiblis et incapables de satisfaire eux-mêmes leurs propres besoins mbokk mi yii ma la wax moo tax yàlla subhaanahu wa taala taxaw taxaw bu gën a yàgg ci jëflante bi njaboot gi war jëflanteeg seen wayjur bu jur bi demee ba màgget kàttanam néew àdduna du mooyu ko Le verset, les versets 23, 24, sourate Isra disent, Ton Seigneur t'ordonne de n'adorer que lui et de te comporter avec bonté envers ton père et ta mère. Si l'un d'eux ou tous les deux atteignent la vieillesse auprès de toi, garde-toi du plus petit écart de langage à leur égard. Ne leur dis jamais et ne les gronde jamais au grand jamais. Parle-leur toujours avec respect, montre-toi humble et tendre et affectueux envers eux, en étalant devant eux ton aile de miséricorde, et prie Dieu pour eux en ces termes, Seigneur, accorde-leur ta miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit avec toute leurs miséricorde. mbokk borom bi fàttali na taxawaay bi ca suratul isra mu ne wa taabudu illaa iya sa borom faratal na kenn du jaamu keneen ku dul moom moom rek mooy kilifa wa bil walidayni ixsaanan farataal na nga jëflante ak sa ñaari wayjur jëflante ba gën rafet imma yablughanna indaka al ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uf wala tanharhuma boo xamee ni kenn ci ñoom walla ñoom ñaar ñépp màggat nañu ci sa wet ngalawaay bu leen wax mukk mukk mukk mbas uf cëy góor gi la cëy meer bi la wala tanharhuma bu gëdd mukk di wax ak ñoom sa kàddu jëm ko waqul lahuma qawlan kariman dil wax ak ñoom waxu teraanga waxu respect wax bu leen jox cër bu leen gëddaal wax bu leen di yëkkati ñu leen di naw wax fit lahuma janaha zulli min arrahma na lal sa laafu toroxtaange ñoom ñu ciy dox ngir yërmande jooy am ci ñoom waqul dil ñaan nga ne rabbi irhamhuma kama rabbayani saxira yow yàlla yërëmal sama ñaari woy jur yi ni ñu ma yërëme woon ba ma nekkee gune suratul isra laaye ñaar fukk ak ñett ñaar fukk ak et sachant que parmi les gens il y en a qui se comportent en hypocrite envers leurs parents comme ils sont hypocrites envers Dieu subhanahu wa ta'ala Dieu les avertit et les menace Dieu subhanahu wa ta'ala met en garde ceux qui font semblant d'être affectueux avec leurs parents mais kii du fond de leur cœur malade demanda à de les débarrasser de ces deux vieillards mbokk yi borom bi subhaanahu wa xam na ni nit ñi ni ñu naafeq ci jaamu gi ñu koy jaamu bare na ci ñi nga xam ne dañuy naafeq ci seen njëkk gi ñuy wane seen diggante ak seen ñaari wayjur ñooñu nag la yàlla di dànkaafu di leen artu ñoom ña nga xam ni ñu ngi ngistal di wone ni bëgg nañu seen ñaari wayjur fekk ci seen biir xol ñu ngi ñaan yàlla yàlla na fi yàlla jële ñii ba man ma mën a féex Dieu avertise ceux-là qui affichent hypocritement leur amour filial rien que pour se faire voir et se faire apprécier de leur entourage à tous ceux qui ne sont pas sincères, qui ne sont pas sincèrement dévoués envers leurs deux parents, à tous ceux qui ne reconnaissent pas ce que leurs parents ont fait pour eux, à tous ceux qui nient les sacrifices de leurs parents, à ceux-là, Dieu subhanahu ta'ala dit Votre Seigneur est à savoir parfaitement ce qui se passe dans le tréfonds de votre conscience. Si vous êtes bon avec vos parents, Dieu le sait, et il toujours à ceux qui se de leur mauvais comportement avec leurs parents et reviennent à lui, Isra, verset 25. mbokk ñi nga xam ni naafeq lañu ci seen cofeel ak seen wayjur nga xam dañuy gistal rek pour seeni dëkkandoo seeni àndandoo jàpp ni kii day nit ku teral wayjuram a ngi nii nit ku fonk wayjuram a ngi nii ñooña nag nga xam ni wor nañu seen mbind gi leen yàlla bind ñooña nga xam ni nanguwuñu delloo njukkal nangu coono yi way jur toggoo li mu xañ boppam lépp ngir ñoom ñooña yàlla subhaanahu wa di wax ca laaye ñaar fukk ak juróom suratul isra mu ne rabbukum aalamu bi bi ma fi nufusikum yàlla xam na li ngeen dëxëñ ci seen biiri xol in takunu saalihiin su fekkee dangeen ngeen sellal laabal seen digganteeg seen ñaari wayjur fa innahu kaana lil awwaabiina gafuuran ki laabal dana ko defal njëkk waaye ki laabalul bu tuubee dellu si defaraat digganteem ak ñaari way waajuram yàlla baal ka ndax moom mooy aji baalaakon ji enfin amis auditeurs poursuit le verset 26 remplis tes obligations envers tes proches ainsi que les pauvres et les voyageurs en détresse laye ji ci topp ni la wa aati zal qurba xaqahu say mbokki jege ñaale defal sa wareef sa digg ak ñoom wal miskin wabna sabil te nga def sa wareef sa digganteeg miskin ci dimbal ka digganteeg ki tumuranke si tu es obligé de t'éloigner de tes parents et de tes proches pour aller à la quête des bienfaits de Dieu parle-leur avec bienveillance et amabilité explique-leur verset 28 sourate Isra mbokk bi borom bi ni imma tu'ridanna anhum ibtigaa rahmatin min rabbik faqul lahum qawlan maysuran mu ne gis nga bu fekkee dem nga ba nga xam ni war nga leen war nga toxu bàyyi leen war nga jëm feneen te dara taxul lu dul sàkku ji xéewalu sa boroom ngelawaay la waxal ak ñoom wax ju yomb leeral la leen mbir yi waxal ak ñoom wax ju tedd ba seen xol nangu suratul isra laaye ñaar fukk ak juróom-ñett nu ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu wërsëgal nu nu bokk ci way dégg yi mën a topp loola yomb na borom bi yàlla na nu ko defal الثمار أيها المختار أنت باب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله ذلك المنهوط يا عظيم الجاه Ce que beaucoup ignorent c'est que la bonté envers les parents ne s'arrête pas avec leur mort, mais se poursuit bien au-delà tant que l'enfant est en vie. Comment me demandez-vous? En priant pour eux le pardon de Dieu subhanahu wa ta'ala, en faisant de bonnes actions à leur intention, des offrandes, des pratiques surérogatoires, en remplissant les devoirs de parenté qu'ils remplissaient eux de leur vivant, en entretenant leurs relations d'amitié avec leurs amis, en aimant ses amis comme eux les aimaient de leurs vivant. C'est ce que faisait le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, avec les amis de Sayyidatuna Khadija, radiallahu ta'ala anha, avec les amis de ses mères qui l'ont allaitée c'est maire par allaitement mbokk yi lu ñu bare umpale mooy rafetal sa digganteeg sa ñaari wayjur yamul boo xamee ni génn nañu àdduna jéggi na loola li fekk njaboot gaa ngi dund nga ni ma naka ma ni la ci sax dàkk ci ñaanal sa ñaari wayjur yàlla jéggal leen te yërëm leen sax ci jëf lu baax di leen yéene yool ja sax ci jëf ay nawafil nafila di leen yéene yool bi sax ci jokk mbokk gi ñu doon jokk seeni xarit nga wéyal cofeel ga ak xaritoo gi loola mooy li yonent bi alayhi salaam jëflante ak xariti saydatuna xadija radiallahu taala anha moom la jëflante ak ay yaayi nàmpalam xariti yaayam yooyu yépp ku mu ci mës a jóg gis jóg na teral la simmi mbubbam lalal la ni la toogal ami auditeur la grandeur la bienveillance merveilleuse de lislaam son extrême tolérance son enseignement rayonnant apparaissent dans l'orientation qu'il donne aux musulmans dont le parent et soit non musulman soit un personnage adonné au mal et à l'abomination mbokk yi waaye euh, màggaayu lislaam tedd jàngale mu ngi feeñ dëgg ci li muy dénk doomu aadama ji nga xam ni way juram du jullit wala way juram jëfkatu lu bon la le verset 15 sourate si tes deux parents t'obligent à me désobéir, à m'associer des divinités inconnues, ne leur obéis point. Mais malgré cela, comporte-toi avec eux convenablement durant votre compagnonnage en ce bas monde, mais suis la voie spirituelle tracée par celui qui se dirige vers moi. C'est vers moi que vous reviendrez et je vous expliquerai alors vos actes. li yàlla di sant jullit bu ñaari way juram jàdd yoon ndax da leen di jàdd mu ni déedéet wa in jaahadaaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilm fala tutixuma mu ne gis nga sa ñaari way jur bu la sante bàkkaar lu ma tere man yàlla bu ko def bu la santee nga bokkaale ma bu ma bokkaale bañal waaye nag saaxib huma fi dunya maarufan sa wareef sa digganteek ñoom ci dundu àdduna gi def ci njekk wattabi sabila man anaaba ilay te nag nga jaar ci yoonu kii nga xam ne moo jëm ci man mu yonent bi sallallahu alayhi wa ali thumma ilayya marjiukum fa unabbiukum bima kuntum taamaluun yàgg sa way jur yépp ci man lañ leen di delloosi buñ leen delloosee danaa leen wax lan ngeen doon jëf kenn ku nekk suratu luqmaan asma bint abi bakrin radiallahu taala anha raconte et dit du vivant du prophète alayhi salam ma mère me rendit visite alors qu'elle était encore mécréante polythéiste je demandai au messager paix et salut sur lui et lui dis ma mère est venue mais elle est toujours réfractaire à l'islam est-ce que je peux lui reconnaître les droits dus à une mère oui lui dit le messager paix et salut sur lui respecte toutes tes obligations envers ta mère mbokk yi asma nettali na mu ni yaayam fekk yaayam yéeféer la gëmagul tàbbiwul ci lislaam te jamono yonent bi alayhi salaam ñëw na seet si ka mu laaj yonent bi alayhi salaam ni ka inna ummi qadimat wa hiya raaxiba afa asiluha mu ne nekk sama yaay ñëw na waaye nag moom du jullit de weddi na lépp loo wax ndax ma jokk ka xaala naam sili ummaki mu nekk aha kañ jokkal sa yaay lépp lu war sa digganteeg moom na nga taxaw ci loolu amis auditeurs pour conclure notre leçon d'aujourd'hui retenons que la bonté envers nos parents à le même niveau est élevée au même degré que le monothéisme pur mais que la bonté envers les parents est plus importante et supérieure au djihad armé contre les mécréants Abdallah ibn Omar radiallahu dit qu'un homme vint demander au prophète paix et salut sur lui l'autorisation d'aller au combat contre les ennemis de Dieu. Le messager paix et salut sur lui lui demanda, est-ce que tes deux parents sont encore vivants? L'homme répondit oui. Alors lui dit la meilleure des créatures, paix et salut sur lui. C'est à leur service que se trouve ton djihad. Va faire le djihad. Ah, dans le service de tes deux parents mbokk yi gis nga topp sa ñaari way jur rafetal sa diggante digganteeg ñoom yàlla mu ngi yëkkati ba mu tolloo ak wéetal gi ñuy wéetal yàlla yàlla yëkkati doxal rafetal sa digganteeg sa ñaari waajur mu ëpp daraja xeex ci yoonu yàlla Abdullah ibnu Umar radiallahu anhu nettali na mu ni benn waaye dafa ñëw ci yonant bi alayhi salaam yastazinuhu fi jihaad di di sàkku ndigal pour dem xeexi yonant yooyu sam laaj ka xayun waalidaak ndax sa ñaari way jur a ngi dund waa ji ni ko waaw yonant yu alayhi salaam mu ni ko fa fiihima fa jaahid yow demal sa jihaad mu ngi nekk ci def lu rafet sa digganteeg sa ñaari way jur demal nga jixaat ci toppatoo sa ñaari way jur bul dem mukk ci xare bi di jël ngànnaay di rey noonu yàlla yi ami auditeur la seule chose que tu peux faire pour supposer avoir remboursé tes dettes envers tes deux parents est dans ce hadith authentique rapporté par Abu Hurayrata où le messager de Dieu La meilleure des créatures, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, dit Un enfant ne peut être quitte envers ses deux parents que s'il les trouve esclaves, qu'il les rachète pour ensuite les libérer. mbokk yi ci yëkkati sunu jataayu tey ñu wax la ni lenn rekk xëy na moom la nit mën a def. mu jàpp ni man kat matal naa sama wareef sama digganteeg sama wayjur abu hurayrata nettali na yonent bi salaam mu wax mu ni laa walla waladun waalidahu illa an yajadahu mamlukan fa yashtari fa yuctiqa mu ni dara mënul tax nga ni doom fay na way juram ba matal pay ga sëkk lu dul xanaa mu fekk ka ci buumi njaam mu ñëw jënd way juróom woowa goreel way juram mbokk nu ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu wërsëgal nu nu bokk ci way dégg yi mën a topp loola yomb na borom bi yàlla na nu ko defal للإسلام ركن عز دام شأنك الإنعام أنت بعد الله mbokk yi ñu nekkoon fii ci rajo Sénégal International àndoon ak sunuy mbokk soxna Salimata Diop Mouhamed di leen jox ndaje ci kàttanu borom bi subhaanahu wa taala ci ayu bis yi nu dëgmal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 wasalaatu wasalaam ala ashrafil mursalin sayidina wa habibina wa nuuri qulubina muhammad wa alihi wa sahbi